Mes chers compatriotes, en cette journée de Corité qui marque la fin du mois béni de Ramadan, je voudrais vous présenter mes vœux de bonne fêtes après un mois de pardon, un mois de pénitence. Nous prions Allah subhanahu wa pour qu'il accepte nos dévotions et nos prières. Cette fête de Corité se passe dans un contexte singulier, c'est celui de la pandémie de Covid-19. Une pandémie qui fait que nous n'avons pas eu la liberté de pratiquer notre religion comme euh, de coutume. Cette pandémie fait également que nous sommes en pleine guerre et nous continuons ce combat pour vaincre la maladie. Nous avons fait de gros efforts Je voudrais ici les efforts de toute la communauté nationale qui se à travers toutes les communautés, avec les élus, avec les chefs religieux, les chefs coutumiers, les populations elles partout, la société civile, la société politique, cette convergence nationale autour du combat contre la COVID-19. C'est la raison pour laquelle Depuis le 2 mars, nous avons par nos services de santé plus de près de 20 000 cas qui ont séjourné des établissements hospitaliers, dans des centres de confinement. Aujourd'hui, plus de 13 000 parmi eux, parmi ces contacts, sont retournés chez eux. Nous avons eu à date 3047 personnes qui ont par le virus, dont 1455 aujourd'hui guéris et près de 1551 ou 55 qui sont encore dans les hôpitaux. C'est dire que nous devons rester vigilants. Nous devons poursuivre l'observance de, des gestes barrières pour freiner la propagation la maladie. J'ai espoir qu'avec ces efforts continus, d'ici quelques moments, nous pourrons revenir petit à à la vie normale. Et je continue à vous demander, je sais que c'est très difficile, mais c'est la seule voie à vous demander de rester vigilant et de poursuivre ces efforts qui sont attendus de, de la part de chaque citoyen et de chaque citoyenne. Puisse euh, Allah nous aider à vaincre définitivement cette maladie qu'est le Covid, afin qu'au lendemain de la Corité, et d'ici la Tabaski que nous puissions vraiment revenir à une vie meilleure. Dewenati et jërëjëf. C'était là le discours du chef de l'État qu'on a suivi sur l'ensemble des réseaux synchronisés radio et télévision nationale du Sénégal. Le président qui exhorte la population au respect des mesures barrières afin de lutter contre cette pandémie, comme il l'a dit, d'ici la fin euh, de d'ici la fête de la Tabaski que nous pouvions célébrer comme il est de coutume. mbokk yeeg xarit yi yéen a ko dégg chef de l'État moo doon wax ak askan wi ginnaaw tey ba ñu wooree benn weer. Euh, communauté musulmane mu ngi célébrer fête du Korité mais ren ñëpp xam nañ ni mu demee ak euh, feebar bi mbas mi nekk ci àdduna bi di Covid 19 célébration bi dafa spécial président nag mi ngi ñaax askan yi pour ñu gën a respecter mesures yi comme ça bu balaa yeneen fête di ñëw ñu mën a fetandoo ñun ñëpp ensemble maa ngi leen déglu ñu déglu ko. asalaamaaleykum ma ñëwoon tey ci bésu Korité bi di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 di leen wax déwénati ak jàmm